Akon tey danga ñëw fii nii Mbodiène mu dugg si euh, sa projet bi nga xam te ne da nga ko fi City ndax mën nga ñëwaat tey si sa déplacement tey la moo ko waral nga présenté waa leen projet bi. waaw waaw jërëjëf um, waaw dañoo njëkk a dem euh, ci village bi fële Mbodiène euh, toog foofu ak suñ kilifa yi ak suñ mbokk yi foofu tamit comme ça ñu ñaanu jox ñu permission après. Euh, jox ñu seen euh, idée te lu ñu war a def foofu dama leen présenter lu may def foofu ci Ekan City te lépp laa leen jox information bi yëpp comme ça ñoom ñu mën a dégg bu baax lu may def foofu après euh, jox ma seen seeni advice après jox ma tamit seen xam-xam lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy fekk foofu lu ñuy dajal foofu challenge yu ñu am foofu xam nga euh, comme saa ñu mën a euh, dajale information bi moom la impliqué euh, luñ luñ bëgg lépp ci sama site bi comme ça ñu koy ñu ñu ñu ñuy waa ñu boole ko xam nga parce que am na lu bëri lu may def foofu mais dama buggoon tamit ñu yëg lu may indi foofu xam nga dañ fi indi éducation indi fa ay ay waa santé ak yooyu hôpital station police Euh, fire fire department tamit. muy pompier. oui um, uh, ay hôtel ak ay restaurant fi yu demee noonu uh, tamit dañuy def uh, hydroponic facility pour gars yi ñuy tëli tool yi mooy um, ni ñu koy woowee new innovation ci farming. ah xam nga. dañuy bay. waaw pour Euh, lépp laa leen bëggoon li ñu indi comme ça ñoom ñu mën a dégg ma indi foofu rek te loo lu am foofu dañuy soxla ñu wax ma wax ma ko tamit comme ça ma mën a euh, euh, find ways pour impliquer ma impliquer ci sama CD bi quoi. gis na ne tamit si wàllum emploi maanaam ndaw ñi mën a liggéey job tamit loolu bokk na si. waaw loolu le bokk na si surtout pour jeunesse ak femmes parce que luñ xam nga Afrique moom suñu jeunesse ak femmes yi ñoo ñooy ñooy uplift suñu suñu future quoi. Euh, dama buggoon wax leen bu baax de li suñu programme bi boole nañ leen boole nañ leen xam nga oui. projet bi ñaata la si ay koppar si xaalis ñaata la ak tamit euh, kañ ngeen di commencé liggéey bi ak kañ la war a fa kañ lay pare. non liggéey bi kay commencé na ba pare loolu moom fi indi fi mu projet bi 6 billion ci US euh, projet bi loolu lay jar dama indi ay partenaires yu nekk fii United States Chine Middle East ak Europe. Euh, lépp laay boole te am am naa ay ay africain investor tamit ñëpp ci boole comme ça xam nga dama dama ko treat comme ni ñu treaté um, euh, euh, masque ñëpp ay boole comme ça parce que lu lu lu ma bëgg a def fii pour international bi mais dafa dafa war a bénéfice Sénégal ak Afrique. voilà cinq cinq hectares la tamit jaatuwaay euh, bi euh, askan wi tamit ñoom nan nga gisee ñoom nan leen gisee projet bi si waxtaan ngeen am ak ñoom ndax am na si ay tiitaange wala ndax seen xel dal na si. ah ci village non kontaan si bu baax a baax a baax te ñu ngi may supporter bu baax a baax a baax te dama bëgg dama bëgg ñu fer ci man quoi dama bëgg lu ma def lépp foofu ñu kontaan si loolu moo tax ma bëggoon a dem foofu waxtaan ak ñoom bu baax a baax comme ça ñu mën ma jox information bi bu ma pour. Euh, projet bi dugg bu baax comme ça ñoom suñ ko gisee suñ ko dëkkee foofu ñu kontaan si bu baax a baax. président Macky Sall tamit. moom lan mooy taxawaayam si projet bi état du Sénégal ndax def la si accompagner wala ndax fonds propre rek nga koy defee nan la liggéey bi di demee yow ak gouvernement bi. non moom mu ngi may supporter bu baax a baax Aliou Sarr moom góorgóorlu na bu baax a baax parce que moom moo moo commencé euh, euh, euh, ni ngay waxee énergie bi quoi. Euh, dama ko wax ci président bi président bi approuve ko jox ma lu ma soxla yëpp pour pour um, ci wetu gouvernement comme ga comme ça ñu mën maa supporter lu may def um, après maak Aliou Sarr euh, ministre euh, tourisme moom dëgg-dëgg moom mu ngi mu mu jàpp lu baax comme ça lu ma soxla foofu yëpp mu yóbbu ko ci président bi comme saa ñu gaz um, gars yi foofu dimbali ma pour ma exécute ko saab ko tamit ñoom ñu ngi ci sama kaw Euh, ñi ñi ñi ñu ngi may dimbali bu baax comme ça ñu meeg ñu ñu ñu ñu euh, jaarale lépp ci yoon xam nga make sure lu may def lépp ci yoon lay jaarale euh, jox ma information bi lu ma soxla comme ça mu mun push sama projet bi foofu international tamit yan retour nga si am na ñoom nan lañ ko gisee. non international bi moom sama community foofu ñoom sax ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo gën a. Euh, excited quoi ñëpp ay ñëpp ñu laa ñëw kan laa mën a tabax sama kër foofu jënd foofu bi dara lépp ñu ngi ñëpp ñu Sénégal lañu bugg a ñëw léegi xam nga man dama gën a xoola def leen naag tabaxuñu nañ tabax ba pare après nga <laughs> yi ñëw. Ah, man la Michel Diom chef de village jën papa Mbodiène d'abord ñaata euh, kër ñoom ñoo fi am ñaata doomu aadama ñoo fi yeewoo. Mbodiène euh, pour ma wax la nag nombre habitants yi dina jafe. mais nombre kër yi ça tourne autour de quatre euh, quatre cent seize quatre cent seize maisons ça tourne autour de quatre cent seize maisons mais nombre d' habitants yi moom mën na ma xaw a échappé tuuti. dëgg la kon 416 maisons xam ne ne kon du dëkk bu ndaw euh, am projet bu mag boo xam te nii ñu ko fi waaj amal muy Akon City nan nga ko gisee. ah xanaa kontaan kontaan mag yi kontaan xale kontaan góor jigéen yëpp ñoo kontaan si lii parce que am na ñoo xam ne dañu doon ñëw fii ne projet projet projet te gisuñu leen sax dañuy dëgg mais kii kilifa bu toll nii kon déplacé wu ñëw seulement pour rencontrer waa Mbodiène vraiment loolu suñu honneur la il nous a vraiment ñun ñëpp a si kontaan ñëpp le maire les adjoints les délégués de quartier ñëpp a kontaan si li mu def tey par rapport ak projet bi tamit li mu leen si wax yëpp ndaxte si wàllum ñàng tamit dina si am ay jéego yu am solo si wàllum wér-gu-yaram dina si am ay jéego yu am solo tourisme bi tamit naka noonu ba si sax wàllum nii euh, féexal xol ak yeneen loolu yëpp tamit bu koy boole est-ce que dal na sa wala boog nan nga koy jàng. Euh, waaw dal na ma xel parce que bi ñuy démarrer amoon nañ kayit de charge cahier de charge boobu presque y tout là-dedans li mu wax fii tey yëpp mu ngi si cahier de charge boobu. cahier de charge bi nag mu a direction ko loolu yëpp bind nañ ko jox nañ leen ko pour nga toogaat fii di koy répété waat di koy répété waat day métti c'est ça mais cahier de charge bi def nañ ko lépp mu ngeeg ñoom xam nañ li ñu war a def xëy na soo fekkee ne xanaa dañu informé wala école parce que presque il a il a répété presque li nekkoon si cahier de charge bi yëpp. répété waat na ko devant tout le monde. te moom ni mu ñëwee tey jii dal na seen xel. dal na suñu xel parce que soo ko xoolee il est jeune déjà li mu favoriser yëpp mooy jeunes yi. Euh, David Seck Sène. David Seck Sène tey yow ji yow yaa wax si turu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si si Mbodiène euh, Akon ñëw fi am fi benn projet bu rëy Akon City euh, yen en tant que ay ndawu Mbodiène nan ngeen accueillir projet boobu. bon projet bi bu ñu koy bu ñu ko déggee aussi fierté lu ci ñun en tant que population Mbodiène. parce que site yi bëri na Petite Côte bi gudd na donc euh, ay kon ci boppam bu demee ba xoolal mboobu ni mu waxee nee na moom moo xool carte bi gis Mbodiène ne fii laa ko bëgg def donc loolu fierté rek lañu ciy am parce que euh, aussi euh, je pense que honneur la ci ñun quoi population Mbodiène waaw gannaaw loolu tamit am na loo xam te ni yéen ko siy xaar forcement yéen wa Mbodiène ndaxte suuf si yéen a ko moom si la nekk lan ngeen siy xaar li ñu ciy xaar mooy c'est-à-dire lépp li nga xamante ne engagé muy engagement ñu jël ko par rapport ak accompagner développement Mbodiène sur le plan infrastructurel ñu def ko ñu respecté ko parce que mënuñu am benn ville bu ultra moderne à côté de autre village ki qui qui qui peine à à décoller donc lépp loo xamante ne infrastructure de développement la mu dem ci santé mu dem ci éducation mu dem ci sécurité parce que sécurité bi moom ñor nañu trop trop trop trop loolu yëpp aussi ñu ngi xaar ñu exécuter ko fii nii au niveau de Mbodiène comme ça population locale yi aussi mën a gis seen bopp bu baax a baax ci projet bi. waaw gannaaw loolu tamit gis na ne moom tam am na engagement yu mu jël wax na ne tam ndaw ñi dina si gis seen bopp si wàllum formation dinañ gis seen bopp seen wàllum ñàng dinañ gis seen bopp tam si wàllum xëy loolu tamit euh, nan ko euh, jàngate waaw loolu xam naa dañ koy rafetlu rek parce que déjà ni mu ñëwee rek ne dama bëgg rencontre population yi aussi dëggal sama bopp bëgguma kenn nettali ma mais population dama bëgg ñu wax man ma dégg ça veut dire que loolu wane na benn respect d'abord et aussi volonté de faire comme euh, de faire autrement que li ñu li ñu tàmm di gis donc aussi moom ko xam nit ki xam ne nitu kaddu la donc aussi euh, ñu ngi xaar rek ndax loolu noonu yëpp aussi mu doon lu mat lu mën a matérialiser wu quoi. Ah, pour ñun fierté la waaw parce que état moo ëpp doole lépp bu jëlee suñuy hectare tamit gisoo fi benn manifestation boo xam ne gars yi dañu wax pourtant ay tool la ñu jël donc mais manifesté wuñu ñu ngi yaakaar ni ki ko jël nii muy Akon ak lim ñu wax fii tey yëpp dina compenser li nga xam ne. moom la ñu manqué daal mooy suñu tool yi nga xam ne jël nañ leen waaw yaa am yaakaar bu rëy daal lañ am si moom. lan ngeen siy xaar léegi loolay laaj bi lan ngeen siy xaar mu développé Mbodiène ci yu bëri chef de village wax na léegi électricité am na gaa waaye doyul doyul parce que ni mu ko waxee ni euh, dëkku Mbodiène foo dem da nga koy dégg du États-Unis kese mais boo dugg see ci dëkk bi da ngay ne fii du Mbodiène parce que ni mu tur bi ni mu demee ak li fi nekk moo xaw a wute état nag mu ngi def li mu mën. donc euh, communauté communauté rurale bi en son temps avait déjà mis defoon na jalon yi pour ñu am électricité gis nga tali bi waaye ba tey dëkk bi day mag day mag dañoo war a yokk yokk euh, defar ndox mi defar aussi euh, électrification bi parce que loolu manqué nañu. gis projet bi ñëwaat si yéen yéen jigéen ñi lan ngeen siy xaar. ñun jigéen yi gis si suñu bopp bu baax la ñu bëgg parce que ñun jigéen yi ñun ñoo amoon suñuy ngedd am suñuy tool ak seen seen doom yi am tool. ak suñuy jëkkër yi waaye yëpp la ñuy jël fii boo fi romboon septembre da ngay gis fii fees dell ak jàmb suukar ak ay mboq ak yooyu xolit yi mais léegi gisatoo ko parce que kenn amatul fi mu béy dégg ñun dañu yaakaar ne Akon bu ñëwee dana rembourser loolu dana ko dana ko compenser daal ci ay projet waaw jigéen yi soxla nañu liggéey war nañu liggéey ci géej gi loolu yëpp dafa nekk gàllankoor ci ñun